aywa di sa préra tey da nga doxantu ba marigot bu mbaaw mhm. doxantu ba marigot bu mbaaw parce que dafa am euh, ak njàppalu euh, ndimbalu euh, Asmalik Diop dafa am benn lu ñu mun tuddee catastrophe écologique bu xew foofu mhm. il y a trois jours dañu gis xëy rek gis ay tonu jën daal di fay nëpp bon xam ñu ndax jën yi si géej gi la ñu jógee xam ñu ndax géej nga xam ne la si si si marigot bi la ñu juddoo. ak jën ni mu chéré jamono ji ak jën ñuy wax ci. kenn yàqu euh, euh, ci mbiru euh, peche artisanale beeg yooyu ak yooyu. Mm-hmm. ñu koy gis ay ay ay tonni tonni jën daanaka daal di daal di naax saay noonu. Euh, ñu jàpp ne jar na ñu def si ab taxaw seetlu. Mhm. Ah, waxtaan ci acteurs yi ñoom ñu jox euh, kenn ku ne ak gis-gis biñ ci am mhm. ñeneen ñi euh, sax dañoo joxoñ baaraam tuuma ne canal d'évacuation bi nga xam ne dañ fa dañ koo teg ngir mu jàllale ndoxu taw yi ñeneen ñi nag ne lu jëm ci pollution bi la maanaam marigot bi toppatoo bi dafa des lu waaye buub rek xëpp ja loolu nag ah. mën naa indi ay yu mel noonu ñu seen xam-xam. xam màcc dem ci ñooñu eh, loolu explication la wala bokk askan wa fa féetee ñoom ñoo def constat bi ba wax ko di Sapera ak Asmalik Diop ñoo doxantu ci diwaanu Mbaaw ñu teewlu seen gëstu. démb barki démb ku ñuy wax Mbay Saar jaar na fi fekk ay xale di nap mu leen bàyyi leen dex gi ndax dex gi da ngeen bàyyi jën yi màgg quoi bu màggee feex un mois ngeen mën a ñëw di napp xam nga ma léegi nag bi mu ñëwee romb fi rek wax loolu subitement si lendemain bi si lañ waaw si la man nag si laa def benn alerte dugal ko suñu groupe benn groupe ñu naan yeesal suñu diwaan ñoo xam ne dañuy ñëw plage bi chaque jour chaque sam chaque samedi dimanche yi ñëw nettoyer plage bi man ne sax dan daal li ñu jàpp mu ne mooy ndox bi daal xalaat naa dafa yàqu man si li ma jàpp quoi mooy ndox bi dafa dem ba yàqu te peut-être moom tamit mooy mooy mooy mooy canal bii gaa yi def fii mooy que ndox bi waroon na mën a delluwaat géej ko bu ko defee jën yi delluwaat même bu fekkee mënuñu utiliser jën yi delluwaat biir géej quoi waaye ndox bi moo dem ba yàqu wala ñaar ñu def si ñu def fi leen lenn ko ndax di yox depuis un mois ni jëni ñu ngi fi te defuñu dara quoi. man camion yi moom damaa part man gis naa camion maintes reprises si beneen si beneen deuxième dex bi ñuy ñuy vidé foofu ay ndox ay yu usé ay ndoxu foos. ne nit ñi yenn saa am na ñenn ñoo xam ne ni seen mbalit yi ak seen xar yu dee loo loo xalaat man waxuma la wax xar bu dee sax waaye nit ku dee sax mën nañ jël sànni ko foofu si si dex gi mën nañ ko def si saako ndax nit ñi saako rek ñëw sànni foofu daal li ñuy saako mooy ñun ñu ñu jëlal ñu fi ay matukaay yu mat sek ñu xoolal ñu fi dex gi Euh, nu mu peut-être dañuy def benn canal boo xam ne nii peut-être ndox bi day verser ndox bi day bu géej feesee ndox bi ñëw bu géej gi defee marée baax ndox bi wàcc. alors loolu nag euh, li ko mën a expliquer bari na mais ba tey jàppaguñu ne euh, pollution la wala empoisonnement la wala leneen la donc ñu ngi xëyma di gëstu avec ñu nga xamante ne seen xel màtti na ci maanaam laboratoire yi nga xamante ne ministère de l'environnement agréé na leen. pour ñuy mën a def euh, analyse qualité des eaux pour ñu xool niveau de polition bi au niveau de du marigot de Mbao parce que tooke yi fii nekk wala voilà yeneen xeetu pollution yi nga xamante ne mën na expliquer situation bi euh, waaye aussi ci biir waxtaan bi am na ñu nu ne euh, maanaam tuyau bi nga xamante ne dañ ko fi installé il y a mois de cela mën na expliquer Euh, jën yi jógee ci géej gi dugg ci marigo bi te xam nga bu nekkee ay jën yoo xamante ne la seen milieu naturel euh, milieu boo xamante ne la c'est suffisamment aéré seen dëkkuwaay maanaam c'est suffisamment aéré ñu xëy suba teel rek retrouver wu ci biir euh, marigo bi mën na indi ay jafe-jafe parce que c'est c'est un milieu boo xamante ne habitué wuñ ci donc mais loolu il faut que ñu saytu ko dafay analyse Ah, def recoupement information yi nga xamante ne yëpp euh, dajale nañ ko ngir mën a expliquer euh, techniquement et scientifiquement li nga xamante ne moom moo xew fii euh, ñoo xamante ne dañ ne camions yi nga xam dañuy vidanger dañuy ñëw ba ci ndox mi di ko fi sotti waaw bu nekkee ne loolu moom lu am la yoon mayewu ko waaw ah, yoon mayewu ko parce que le marigot de Mbao maanaam milieu récepteur la marigo la waruñu fi sotti ay eau de vidange waruñu ko fi def parce que ONAS am na ay bërëb yoo xamante ne aménagé na ko ci dakaar foo xam ne eau de vidange yi war nañ koo mën a dellu dem sotti ko foofu donc loolu aussi bu nekkee am na il faut que ñu organiser wu ak population yi gën leen ñaax pour que ñuy def surveillance bi pour que ñi nga xam ne dañuy ñëw di sotti ndox mi foofu ñu mën leen arrêté ñu bañati ko fi def. aywa mu nekkoon dégg ba ca mbaaw di marigot ba dafa mel nii liñ doon waxtaanee sànq la euh, di wax ci njalbeen ga euh, ñenn ñi dañoo jàppe dégg bi du ñu buub xëpp fa loolu effectivement euh, mën na sax indi loraange euh, non seulement jën yi mais riverains yi nekk à côté effectivement euh, li Fatou bu gisee pour ñi nga xam ne dañu yëngu ci écologique li pour ñi catastrophe la mm. catastrophe écologique la parce que ba tey ñu ngi ci saytu yi xamuñu réellement lan moo ko waral am na ñu naan peut-être que ndox maanaam mbalit bi ñu fay sotti la bu nga xam ba day dem ba nga xam ne que day polluer day polluer li nga xam ne mooy dég bi am ñu jàpp ne sax mën naa am benn produit toxique boo xam ne dañ ko fa dañ ko faa sotti te xamuñu ko am na ñu jàpp ne également que température bu bi mujj am ndakaaru fan yi tàngaay bi parce que dégg la euh, euh, donte gudd na sa fait 4 mais mais lu yenn xóoti également mais euh, température yi foor na fort boo nga xam ne ni que puisque c'est pas profond mun na mun na mun na mun na rey jën yi parce que jën également dafa am dafa am température bu muy dundee ci biir ci biir ndox am na déjà également beneen hypothèse bi wax ne que canal parce que euh, déeg bi dafa relié wu ak géej gi donc am na jën yoo xam ne jën yoo xam ne ci géej gi la ñuy mën dund am na jën yoo xam ne mën nañu dund ci dégg mais bu fekkee dafa am canal bu relié li nga xam ne mooy géej gi ak déggi gi jën yi jóge si dé euh, euh, géej ci déeg gi foofu du seen milieu donc yu mel ni dañ ko fay dañ ko fay faral di gis mais c'est loolu sax yenn experts yi jàpp nañu que c'est c'est probable li ñu jàpp daal mooy pollution bi ak ak li nga xam ne nag mooy euh, euh, camion vidange yeeg yooyu ak fosse septique yi nga xam ne dafa am ay branchement clandestin parce que il faut pas oublier que dégg déeg bi moo fa jiitu dëkkuwaay yi mm. euh, dëkk benn jéeg bi moo fa jiitu dëkkuwaay yi vingt ans de dëkkuwaay dafa fekk si déeg ba nga xam ne sa nit yi dañuy remblayer pour mën dëkk fu nga xam ne plus plus mu jege li nga xam ne mooy mooy mooy mari googu mm. donc yooyu ay problème au delà de de de ramle yooyu dañuy dañuy dañuy bënn ay fosse septique clandestin yu nga xam ne tamit day day jël di sotti foofu xam nga euh, voilà loolu mën mën mënta ànd hmm. boo ci boolee nag euh, euh, eaux pluviales yi nga xam ne day jóge ay Kër ay Kër Mbay Faal yi nga xam ne day day wallangaan ñëw ba foofu jamonoy nawet ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk fi nga xam ne moom mooy moom mooy mbaaw sax day am décrue ah de de de de ndox mi day wal dugg seen i kër donc yooyu yëpp ay jafe-jafe la yoo xam ne tey dégg bi mu ngi koy indil li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy ñu dëkk mbaaw euh, bon voilà mais mu ngi ut ay solution ñu ngi def ay analyse tey ba xam ndax euh, euh, lan ma ko waral dañu def war nañ def analyse ci ndox mi déjà xam lan moo ko waral. réellement xeetu dégg bu mel nii yan avantage la mën am ak yan inconvénient la mën a jural askan wi. bon à la base dégg bi sa mënoon ah, au départ c' était intéressant pour ñi nga xam ne ñoo dégg boobu parce que doon na doon na nekk milieu bu nga xam ne mënoon nañu fa féexlu setoon na rafetoon donte amoon na euh, yenn yenn mois ne yenn mois ne ndoxum géej gi dara ñëw euh, dugg foofu génnaat mais comme je dis au fil du temps li nga xam ne avantage la woon euh, doon na féexal waa askan wi dafa mujj nekk jafe jafe-jafe mooy euh, euh, population bi tax na tey euh, dég bi gën na ndaw déjà même même bu fekkee longueur bi des na ba tey parce que wax naa ko sànq ça fait 4 euh, des na ba tey euh, euh, pollution bi dafa dafa dafa dafa dafa yokk de façon accélérée. Mhm. c'est-à-dire que en 10 ans tey polition bi nga xam ne moom la ñu nemmeeku foofu jafe nañu nemmeeku ko ci dëkk yu yu yu nekk yu nekk yu nekk si biir réew mi tey. Mhm. donc la polition elle est extrêmement forte fi nga xam ne moom mooy déggu fi nga xam ne moom mooy. mais mais mais tey jii tey jii ñan ñooy responsable yi nga xam te ne rek ñoom ñoo war jël li nga xam en charge mooy wàllu yi wàll yi ñuy waxtaanee ñan ñooy responsable yi. bon pour ce cas précis ci affaire yu jën yi tey je pense que euh, euh, euh inspection régionale de la pêche war na fa def benn descente ministère de l'environnement. war na fa def benn descente ñi nga xam ne également mooy ministère de l' assainissement également war nañ fa def descente bu weesoo nag euh, euh, commune mairie ba parce que mit mairie bi moom mooy yor lépp li nga xam ne moom mooy moom mooy dund doomu aadama yi foofu donc ku nekk si ñoom am nga sa responsabilité mais pour sa cas précis qui est qui est de cette mortalité des poissons muy jën yi dee je pense que inspection régionale de la pêche ñoom am nañ ci wàllu bu rëy war nañ def ay enquêtes war nañ def investigation ba xam lan moo waral phénomène bi parce que tey jën sa ça devient de plus en plus rare ñu ngi def promotion pisciculture donc yu mel nii bu amee gënu gëmu ne lu arrangé askan wi la. waa ji ci biir waxam wax na lu am solo nee na. Mhm. camion vidange yi. Mhm. dañ fay tuur. Mhm. ci liñ jàpp. effectivement ñan nga foog ni ñoom ñoo war a mën a enquête bi ba xam ni parce que camion virage yi nous sommes ay sénégalais bi mhm. mooy pas autoroute à péage route pour évacuer ndox yi nga mhm. seen camion ci fajar gi bu fa samp tuum di di sotti nous sommes mhm. euh, jii ban matuwaay la ñu war a taxaw ba nga xam ne seen seen ci seen mais d'abord mairie war a njëkk jël ay par rapport à cette question parce que quand même moom mooy administrer zone boobu taxaw temm xaw ma ndax dafay wut ay garde wala wala fexe ba nga xam ne duñ fa duñ fa duñ fa vidéeti mais xam nga vidange également dafa ça ça ça obéit à des normes. Mm-hmm. du fu nekk le camion de vidange war a ñëw di vider euh, euh, euh, di vider comme comme ni mu ko bëggee y a des zones yoo xam ne ne dañ ko def pour loolu am na zone yoo xam ne dañ koy interdire pour loolu mais xam nga généralement yi buy am du doon bëccëg. Hmm, day fekk nit guddi lay doon guddi lay doon. am la moo tax mu plausible parce que. Cap de Biche foofu la ñu créé benn kii boo xam dañu fa la camion vidange yi di dem dañuy fay 3000 francs 3500 pour vider mais ay sénégalais la ñu ah da ngay gis ku ci yor camion citerne heure bi Cap de Biche tëj mu bëgg bu xëyee liggéey dem sotti ko foofu cest à plausible lu ñu wax mais waaw ban taxawaay la ñu war a am ba nga xam te ni camion yooyu dootuñu fa dootuñu fa mën a sotti mais comme je dis il faut chercher ay li wax ay parce que tey euh, euh, yooyu ay métiers la yoo ne ci wàllu environnement ay métiers yu yu am yu am solo la yu am doole. ay mm. eh, am na boo demee ci ñi saytu environnement boo demee si si si àll yi dafa am ay ay éco boo demee ci yenn yenn endroit yi nga xam ne c'est écologiquement euh, rentable wala important pour yenn dëkk yi dañuy wut ay ay nit yoo xam ne ne que dañuy taxaw pour saytu ko pour pour protéger ko. Mm. tey je pense que foofu lañu war a toll. maintenant bon xam nga comme comme ni nga ko waxee Sénégal la yenn saay sax. mun nañ ko am mais comme je dis mbir yi buy am souvent ce n'est pas au au au vu au su de tout le monde. Mhm. donc yenn saa lu jafe lu jafe lu jafe lu jafe protéger la yenn saa yi. très bien merci beaucoup euh, Chérif euh, am na solo. dégg moom ci capitale déjà Ndakaar gis na ni mel ñu ngi tàng et je pense que waroon na nekk nga ne loolu dafa laaj rek wàllu aménagement déjà nit ñi di fréquenter foofu parce que ku soxla yenn saa yi. fu féexoo la sax war nga mën a jéggi géej mais li ci am solo comme ni ko di sax waaye je pense que enquête yi war nañ ko gën a approfondir parce que comme lor na ay jën xëy na sax mën a lor ay nit mm. te loolu pour ñu xam lan moo waral déjà jën yi di ci ñàkk di ci faatu mm-hmm. ba musiba boobu di am sur le plan écologique je pense que li ci gën a am solo moom mooy ñu xool lan moo ko waral ba tax na prélèvement yi mu wax pour ñu xool ba xam cause fan la jóge mm-hmm. jéem koo régler moo dem ba wasaaroo ba mala yi fa nekk di naan ci doxub déeg ba nit ñi nga xamante ne ñi fa di dëkkandoo moom moom mën naa indi loraange te bu ne ministère environnement développement durable je pense que ciram ci wàll woowu parce que fii nag dañ fee xaw a mbiram environnement lii am na fee xam ne bu fa amoon même kuréel yi nga xam ñoom ñooy jóg aussi di xeex wàllu environnement war nañ leen cee dégg tamit ñu jàpp ci parce que comme ni nga ko catastrophe écologique la ah am na fu mu commencé mais xamuñ fu mu yem ah ministre bi sax ci boppam dañ ça nekkul woon lii quand même gétt la woon euh, ñi daan dëkk à coté dañ fa doon dem di gérer di fa feexlu surtout boo xoolee à l'intérieur du pays que ça soit mu nekk fleuve dex wala mu nekk déeg dafay am benn euh, gétte boo xam ne moom moo doon dundal askan bi te dañ fa doon dem duñu am benn jafe-jafe et dañ ko doon sàmmal seen bopp parce que li ñuy wax rek sa moomeel boo ko sàmmalu sa bopp kan moo la koy sàmmal aussi c'est c'est la grande question justement Fatim comme wax ko nee naa la sànq euh, déeg bi au départ en milieu la boo xam ne ñu nga xam ne dañu dëkkoon foofu mhm. daf leen daan arrangé parce que mhm. daan nañ fi mun di féex si mhm. daan nañ fi mun voilà daan nañ fi mun sax napp jën yenn saa parce que mbaa ko xam xam ne ne euh, dëkku dëkku dëkku dëkku euh, mool la euh, am parce que dégg bu day faral di am di am ay jën mais ak situation yi moom gëmatuma mu am sax jën asama jën bu ñu mun. bu ñu mën a lekk simple lekk sa wóor. justement il faut ñu xam la. daa mel ni Fatick lu cher lay lu cher a yàqu déggoo maan ko kenn yàq jën. <laughs> yaboo yomboon na waaye léegi yaboo yi kenn mënee su ko ci marché bi. dañ ñoon wax naan naan naan bu ma faale ni simi jën la bu neex yax yaa ko yàq waaye nag yaakaar naa ne moom fi mu ne nii ku gisoo ku jotoon ci yabooy bi jël tas sax gisuñu ko waxuma la ak mër merci beaucoup Dissa Frera euh, ci li nga indi am na solo lool euh, ci agro agroécologie léegi léegi ñu dem ci wér gu yaram.